rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ni ñu ko baaxoo di defee weer wu jot di weeru wolof saa yu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent jotee danañ àndandoo ci ndigalul sëriñ bi ñëw ci jumaa ji sëriñ Abdou Diop imam e, wax ne sëriñ bi nee nañu maase séentu weer wi ca ko ci xam lu wér nga yëgle ko su ñu defee ba noppi itam danañ jokkoo ak sunu ndaw yi nga xam ne ñu ngi ci région yi te mm, représentant sëriñ Touba yi nga xam ne ñu ngi ci région yi ak département yi te Serigne Modou Mbacke si di seen coordinateur dana jokkoo ak ñoom waaye Serigne Bassirou Mbacke mu Serigne Abdoul Khoudous nekkal ñu fee ci Daarul Moxti da dox suñu diggante ak waa Tiwaawan waaye ñu ànd ko ak commission bi nga xam ne ñoo nekk Dakar ñoom itam su danañ génn ci tëli fii bunt bi nga xam ne moo jàkkaarloog tëli Alaaji Babacar Kébé Ndiouga ànd ak commission bi waa daayira Muxaddamatul Xidma ak bokk yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale bu ñu ko séentoo ba waxtu jot nag danañ jokkoowaat ak Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha ndigal lu mu ñu jox loolu la ñuy daal di jottali moo tax nag ki nga xam ne moo yore kaddu commission bi di sëriñ Abdou Diop imam ci njiitul sëriñ Mouhamadul bu so moom la ñuy maase déglu ñun ñëpp ñu maase déglu ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ni ko sëriñ Fallou Garas si la waxee rek noonu la ndax euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne sëriñ bi danoon yebal ci jumaa ji nu yéene fi wax na léegi nañ séentu weer wi te ko ci xam lu wér nga yëgle ko bu ñu defee noonu ba noppi nag noonu mu wax dañuy génn ci soowu noonu ci suñu bopp di ko séntul suñu bopp ak di taatan xibaar yi ci gox yi ñu ko defee nag ba ba guddi ba waxtu wi jot lañ lañuy jokkoo kër sëñ ba wax ko leen gis ak li xew yàlla dogal na kon boobaak léegi déggun fi kenn ku nu wax nee ne gis na weer yi ci mbooleem gox yi moo tax bi loolu lañ wax yëgal sëñ bi sëñ bi kon nekkoon nañ jàpp ne suba ci gaaw yi mooy doon fan fan bi fan weeru gàmmoo bi kon ginnaaw suba ci dibéer ji mooy doon benn fanu kon rakki gàmmoo la rakki gàmmo dañu xam ne dimanche mooy benn fanu rakki gàmmo bi na ko na ko ñëpp xam kon ñu xam ne jëli nañ loolu ndigal li ci sëñ bi ginnaaw bi ñu ko séenteen séentoon nag ca jokkoo gox yëpp ba noppi te gisuñ ko fenn booba lañ jokkoo kër sëñ bi ba sëñ bi kon nangu nangu na loola ne kon léegi suba mun nañ ko jàpp suba ci gaaw bi nañ ko jàppe fanweeri fan ak gàmmo bi ginnaaw suba ci di dibéer di benn fan rakkaati rakki gàmmo ji rakk gàmmo ne ko ñëpp xam noo ngi sant bu baax nag rajo yi nga xam ne yëpp dañu fiy teew dinu ko dinu ci jàppale ak waa Muxaddamatul Xidma ñi nga xam ne dañ ciy am coono bu rëy ci tasa tasaare gi kon ci kon ñaan sëñ bi yàgg fi lool te ànd ak wér ci dara ji Sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu